La lutte, la lutte contre la corruption moom il a une démarche parce que xam nga y beaucoup d'argent qu'on investit dans la lutte contre la corruption mais moom approche bi mu am je sais pas s'il peut revenir sur ça ou euh, ça me semble quand de manière, une question de manière, sérieuse. de extrêmement brève hein man ah. j'estime que l'OFNAC n'a pas fait son travail on n'a pas n'a pas rempli rempli sa mission parce que OFNAC mu ngi fii mais malgré tout corruption bi dafa gën a jéggi. mais OFNAC est-ce que tamit am na les coups de franche. boobu laa lay wax waaw moom laa lay wax amul. li ñu OFNAC amul amul coup de franche. waaw pour faire son travail. et donc man je pense que il va falloir que ñu soit ñu renforcer les pouvoirs de lof l'OFNAC. Mhm. rendre ko mu nekk un organe indépendant. Mhm. parce que fi mu ne nii. en tout cas créé ba nga nekkoon moom kii nañ ko. sopp ah, nañ ko waaw ah, waaw yóbbu nañ ko waaw xam nga yóbbu nañu calculer calculer après après après le pouvoir quoi ne pour ñu suñ suñ génnee ci nguur gi est-ce que nañ leen topp lu ñu leen topp. parce que <laughs> léegi yoo xam nga yëpp ay calcul la. parce que fi mu ne maa ngi koy wax souvent le pool financier bi nga xam ne moo remplacé CREI yi mais kenn gisul ko ko de. Mm-hmm. ci papier lañ ko créé mais kenn gisul ko. Mm-hmm. donc donc on va aller vers. indépendance de l'OFNAC. d'accord même suñ koy changé. moi je pense que changé dañ koy changé dañuy changé tur bi. Hmm. parce que c'est pas une office office office euh, c'est pas un nom. Euh, pour euh, benn euh, organe de lutte contre la contre contre contre la ay office xaw ma lan waaye affaire caaxaan yooyu hmm. dañu ko def soit une une juridiction wala en mu nekk un organe indépendant xam ne day am plein pouvoir une cour c'est pas mieux cour voilà cour moom la cour moom la wax ah comme ça ñu am ko jox ko une indépendance mu am possibilité et puis jox ko les moyens qu'il faut. jox ko les moyens qu'il faut comme ça mu mën a def des investigations en tout indépendance. et puis saisir le procureur ah. mais boobu day day fekk ñu def benn réforme aussi le cordon le cordon ombilical bi lié le ministre de la justice. ak le ak le le parquet dañ koy dindi à défaut que ñu dindi ko parce que France ba tey cordon ombilical bi mais. dañ ko aménagé ba nga xam ne. mais yo le ministre de la justice garde des sceaux. de la république française il est poursuivi il est poursuivi c'est un c'est un c'est un prévenu actuellement nii. c'est un exemple. et et et la lay wax ma ne xoolal gis nga. ñu ñu ñu tàggoo. jeex na bala ñu mën a tàgg